nous avons engagé dans le cadre du développement de produits euh, l'amélioration et l'encadrement du produit, d'un produit spécifique pour le Sénégal, produit touristique j'entends, on appelle le tourisme religieux. En général, euh, nous avons plusieurs produits touristiques que nous accompagnons avec les acteurs, dont le tourisme balnéaire, le tourisme qu'on appelle le tourisme culturel avec tous les grands événements culturels qui se passent à l'intérieur du pays qu'on accompagne. Et il y a le tourisme religieux qui est l'objet de beaucoup de déplacements de nos compatriotes, donc de transport, de questions d'hébergement et même de circuits touristiques dans les différents sites religieux. Nous avons donc engagé avec euh, les différentes communautés religieuses du pays, sur instruction des autorités de l'État, du président de la République, de Comment accompagner le développement de ce tourisme religieux On le sait, le président de la République a engagé le programme de réhabilitation des cités religieuses et avait organisé la construction de sites et la réhabilitation de certains, euh, certaines mosquées et sites religieux à travers le pays. C'est dans ce siège que nous avons contacté les différents responsables des différentes communautés pour définir ensemble les contours de ce qu'est le tourisme religieux. Après avec euh, Hizbut Tarqiyyah avec qui nous sommes en convention avec euh, euh, après Tivaouane et nous envisageons d'élargir chaque année encore les partenariats possibles pour former des guides touristiques mais également pour encadrer le développement et la structuration de produits touristiques. Ici, euh, nous sommes dans la capitale sénégalaise, euh, nous sommes à Cambérène, la, la capitale dans de la communauté des Layènes. donc un site religieux par excellence, et qui permet d'avoir de, euh, un produit qui peut être attractif pour euh, des musulmans du monde entier, mais des non-musulmans aussi qui pourraient venir découvrir l'appel de la haine qui se passe sur les côtes de Cameroun et de Yoff. Un, un, un, événement émouvant, d'une grande intensité émotionnelle et spirituellement puissant qui pourrait, comme Notre-Dame à Paris, comme la basilique de Saint-Pierre, mais aussi comme euh, le site du Taj Mahal, euh, comme euh, le, la capacité de l'homme, par adoration à son Seigneur, de réaliser des choses extraordinaires. Et ici, le génie spirituel sénégalais se matérialise à travers les communautés des tarikhas. Il y a la tarikha, partout dans le pays, mais à Dakar, la tarikha symboliquement puissante, c'est la tarikha des Laïens. Et donc il était important, à travers le comité central, qu'on accompagne l'événement, qu'on montre sa spécificité euh, et qu'on accompagne euh, cette dynamique de structuration d'un produit touristique religieux à travers des circuits, euh, la grotte qu'on connaît, Angor, Camberen, le mausolée de Camberen, mais également le mausolée de, de Yoff, euh, en face de, de, cet océan bleu, et tous ces hommes, euh, toute dévotion Euh, armée euh, en face de la mer et habillée en blanc. C'est un magnifique spectacle d'une puissance spirituelle qui peut intéresser n'importe quel euh, sensible, qui est intéressé par la chose spirituelle ou non d'ailleurs, par simplement le génie humain. Voilà pourquoi nous sommes venus saluer tous les chefs et enfin les, les kilifas en tout cas de, la, localité de Cambérène et de Yoff pour faire une jar, demander leur prière pour le pays, demander leur prière pour le président de la République, euh, demander leur, prière pour la paix dans le pays. Parce qu'après tout, ces chefs traditionnels, ce modèle de religion ouverte, euh, modèle de religion soufie, euh, musulmane, c'est ça la fierté du Sénégal. C'est la fierté du Sénégal en termes d'image dans le monde pour vendre la destination au Sénégal, mais c'est aussi la fierté de tous les patriotes sénégalais. Parce que si nous avons ces, cette culture de dialogue, de paix entre, entre les différentes religions, les différentes communautés, c'est parce que nous avons de véritables inspirateurs, de véritables leaders religieux qui ont su imprimer en nous ces valeurs qui font que le Sénégal est le modèle démocratique qu'il est aujourd'hui. C'est aussi pour ça que, comme l'a dit le président de la République ce matin, nous <laughs> refuserons par tous les moyens nécessaires une quelconque euh, forme de euh, d'agression contre ces valeurs, contre ces leaders. Euh, et, et, nous le refuserons avec, euh, avec, avec la méthode, avec la rigueur. Nous le refuserons pas forcément avec les méthodes de ceux qui les agressent, mais avec simplement la confiance que nous avons à ces chefs religieux, à ces chefs spirituels, dans leur éthique, dans leur comportement, dans leur viatique, dans leur habitude. dans leurs traits de caractère que nous apprécions chez eux et qui font, qui constituent des modèles pour tout le peuple sénégalais. Donc euh, c'est aussi l'occasion de saluer leur action, de leur demander prière euh, pour que, la, voilà, pour que la paix règne au Sénégal et que le modèle démocratique sénégalais et le modèle national de communauté nationale sénégalaise soit préservé. waaw dañ ñëwoon tey ci bés bu mag bi ci Cambérène ak Yoff siyaar kilifa yi waaye tamit euh, lëkkaloo ndax ASPT ci liggéeyam dafay promouvoir li nga xam ne mooy destination Sénégal destination Sénégal nag mooy ñi nekk ci réew mi di tukki ci biir réew mi ak ñu jóge ci bitim réew di tukki ci biir réew mi loolu nag suñu koy promouvoir ay produits la ñuy promouvoir produits yi Sénégal am comme produit touristique mooy li tax nit di ñëw di tukki ci biir réew mi bokk na ci balnéaire balnéaire mooy géej gi waaye culturel itam am na culturel mooy maanaam biennale bi festival yi am ak yu demee noonu nga xam ne ci caada ak cosaan lay lay yëngu naka noonu am na li ñuy wooyee MAIS mooy tourisme d'affaires ñi nga xam ne ay rencontre ay réunion yu xew ci àddina bi la ñuy dajale fi di ko fi def waaye noonu la amee tamit benn produit bu ñu ràññee muy tourisme religieux mooy nit dina dox dëkk dëkk ngir diineem dina dox dëkk ak dëkk ngir pas-pasam ci tarixam loolu nag dafa laaj parce que ku déplacé wu rek dina soxla transport soxla hébergement soxla tamit soo yegee ñu wan la bërëb yu baax yi yomb ci yow loolu nag métier la nga dem Rome métier boobu moo fa nekk nga dem fu demee ni euh, Jérusalem Israël dafa am ay guide touristique ak ay circuit yu ñuy teg pour nit ñi di fa jaar ñun fii itam ci réew mi am nañ fi ay nit ñu fi bàyyi lu baax bàyyi fi bërëb yu baax yoo xam ne suñu lëkkaloog nit ñi nga xam ne ñooy def liggéey boobu dinañ leen tàggat woon leen ay développer ay circuit organiser wu ba état mun leen a gunge ci loolu nga xam ne mooy produit de l'hygiène ndax nag xam na ne sénégalais suy déplacé wu lii bokk na ci li koy gën a déplacé mooy tarixam ak diineem loolu moo tax ñun en tant que doomi yoof itam ndax dëkk yoof di fi yeewoo euh, am itamit euh, vraiment euh, li nga xam ne moom la àddina yëpp di ñëw di fekkee tey muy l'appel des Layènes muy xew fii ci yoof war nañ jóg dem siyaare euh, dem dem sargal euh, njaboot yëpp ak kilifa yi fi ne dékku ci ñoom seeni ñaan ñaan yu ñu jëmale ci réew mi jëmale ko ci boroom réew mi jëmale ko ci yoof jëmale ko ci askanu senegal yëpp ñuy sant nag ci ni nga xam ne noonu la ñu euh, xalifa bi ak njabootam yëpp téye fii ci yoof loolu doon na moo tax itam ñu dem feddali kóllëre boobu montré suñu disponibilité jokkoo tamit ci organisateur appel bi muy euh, euh, le comité central ànd ci ak euh, vision cent cent vingt neuf ak également njaboot gi yëpp daal ba nga xam ne fuñ ci mun a jàpp rek jàpp nañ ci fexe ba li nga xam ne produit touristique bi nga xam ne mooy appel te Layène bi am fii chaque année nga xam ne c'est un phénomène de ferveur religieuse très fort mais physiquement impressionnant ñu fexe ba muy gën di fës nga xam ne nit ni mu naan dinaa dem Sénégal waaye dama bëgg a fekkee période du festival de jazz kii ne dinaa dem Sénégal waaye dama bëgg a fekkee période nit di naan dinaa dem Sénégal waaye dama war a fekkee période appel des Layènes loolu mooy liggéey bi ñuy jéem a liggéey fexe ba mu doon une attraction au niveau de la capital doon na ko ba pare sax ndax euh, borom bés bi ba mu annoncé bësam du tey waaye ñun dañ cee bëgg a barkeelu rek ci wàllu tourisme religieux fexe ba mu doon un produit structuré boo xam ne ñun dinañ ko mën a positionner nit ñi ñëw di période boobu di mën a xool ce spectacle vivant d'une communauté religieuse fervente et qui exprime toute sa ferveur euh, sur les côtes de l'Atlantique avec euh, cette beauté magnifique voilà jërëjëf jërëjëf